sëriñ Abdou Karim Touré sëriñ Abdou Karim Touré mi ngi feeñ jamono ci atum 1871 ci dëkk bu ñuy wax Màkka Touré Màkka Touré mi ci commune bu Njaañ ci arrondissement bu Koki ci région de luga ci dëkk boobu nag di Màkka Touré fa jëmm ji nag di sëriñ Abdou Karim feeñee nag jamono di doomu sëriñ Ahmadou Mokhtar Touré moom sëriñ Abdou Karim Touré ak ku ñuy wax soxna Mariam Ndeer Touré sëriñ Abdou Karim Touré nag am na ñu bokkal soxna Mariama Ndeer Touré mi ak kii di sëriñ Ahmadou Mokhtar Touré ñu mën cee ràññee ñaari Mariama Touré bintu soxna Mariam Ndeer Touré ak sëriñ Ahmadou Muxtaar Touré ak ku ñuy wax soxna Kura Touré bintu soxna Mariama Ndeer Touré bintu sëriñ Ahmadou Muxtaar Touré ak moom sëriñ Abdou Karim Touré ibnu soxna Mariama Ndeer Touré ak sëriñ Ahmadou Muxtaar Touré ñaar ñi nag la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor ak moom nag muy ñett am na nag ñeneen ñum bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Moodu Jéey ibnu soxna Mariama Ndeer Touré ibnu sëriñ Balla Jéey ak ku ñuy wax soxna Mbeen Jéey bintu soxna Mariama Ndeer Touré bintu sëriñ Balla Jéey bi mu matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Abdou Karim Touré rakku waajuram bu ñuy wax sëriñ Guuña Touré moo ko dalal nag lii di alxuraanul karim waaye nag laataa sëriñ Abdou Karim Touré nag di mokkal alxuraanul karim nag jóge na fa nag dem fekki ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci dëkk bii nag di Mbàkke Baari jolo Jolof sëriñ Abdou Karim Touré nag bi muy ñëw ci ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag mukkulul nag lii di alxuraanul karim te yëgaatuñ nag faneen fu jaar nag ci wàllum njàng xam moom macha allah amoon na ko ba tax na itam nag bind na ay téere téere na ngir jagleel ko ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xadiim kon mayuk suñ boroom moom nag amoon na ko ginnaaw bu mu jógee ci daara jooju mu doon jàngee ci rakki juróom di sëriñ Guuña Ture bàyyi koo fa nag ñëw Mbàkke Baari Jolof fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ngir jaayantee moom nag nekk nag murit bu dëggal bisub keroog bi mu ñëwee ci dëkk boobu di Mbàkke Baari Jolof nag ngir jaayante seeg ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba egsi nag ci dëkk boobu di Mbàkke Baari Jolof ginnaaw bu mu nuyoontee ku baax ki sëriñ Tuubaa Touba Seexul Xadim Seexul Xadim laaj na sëriñ Abdou Karim Touré lan moo nekkoon say tànk sëriñ Abdou Karim di wax ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xadim dama ñëw ci yow ngir jaayante si Seexul Xadim nag laajoon na sëriñ Abdou Karim Touré nag maag yow lu ñu bokk sëriñ Abdou Karim Touré di ko tontu di ko wax ne yow de bokkoo kenn Seexul Xadim di xamal sëriñ Abdou Karim Touré di ko wax ne waxuma loolu lu ñu bokk ci aadama ak awa laa lay laaj sëriñ Abdou Karim nag di tontu ku ko wax ne nag maag yow ñoo bokk menn maam ma ndax yow Ahmadou soxna sa maam man mii sayer soxna busa mooy sama maam seexul xaddim nag di ko xamal ne loolu nag laa bëggoon nga xam ko ba noppi waaye nag li fi nekk nag day jaay ak mbokk nag mayiwu ko ca booba nag la sëriñ Abdou Karim Touré nag jaayante ku baax ki sëriñ Tubaa seexul xaddim booba itam nag tuut tànk la ndax ca daaray alxuraan ji mu nekkoon di daaray alxuraan joo xam ne ni rakku waajuram moo ko yoroon di sëriñ Guuñu Touré foofu itam la bàyyikoo ñëwoon Mbàkke Baari Jolof fekk ku baax ki sëriñ Tubaa seexul xaddim ginnaaw bu mu njëkk gisantee ku baax ki sëriñ Tubaa seexul xaddim murit googu sax laataa mu koy nekk ay mbokki boppam nag daanañ ko jël si ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim am na yoon wuñ ko jël see sëriñ tubaa seexul xaddim doon sàkku nag ci sëñ Abdou Karim Touré mu delluwaat seex Abdou Karim Touré di ko wax ne jëmm ji de mën naa dellu waaye ruugi moom du dem seexul xaddim nag laajoon nañ ñi ko doon jël si nag lan moo nekk sababu ñu di ko jël si ñuy tontu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne moom dafa nekk doomu soxna te dafa waroon a jàng te daara ja lu tollu juróom ñaar fukki doomu aadama ña fa te moom mi bokkoon na ci ñi leen waroon a jàngal te boobaak léegi nag xamu xamagul dara kon dafa war a jàng seexul xaddim di leen tontu na leen baleen ko fi abdu mii sax su ma doon fa sax ñu war a ànd te ànd ak man nag du tee nga war a xam li nga war a xam te du tee nga jàng li nga war a jàng te du tee nag nga am li nga war a am kon nag baleen ko fi ñu daat fay ban nag sëriñ abdou karim Touré kon nag lii moo tax nag sëriñ abdou karim Touré nag jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag nekk nag murit bu dëggal mu wéy nag nekk mbàkke loola ku baax ki bàyyi koo fi nag dem nag ci géej gi mu ci atum 1895 bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi nag ci njaboot gi mu dénkoon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci la sëriñ Abdou Karim Touré mii nag bokk waaye bi seexul xaddim demee ci géej gi nag laataa mu fay yàgg waajuróom wii ñuy wax sëriñ Daam Touré moom sëriñ Abdou Karim Touré ñëwoon na nag jël si sëriñ Abdou Karim Touré mii ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru maam Ceerno itam jébbaloon na ko sëriñ Abdou Karim Touré ginnaaw bu sëriñ Daam Touré jël see kii di sëriñ Abdou Karim Touré ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci dëkk bu ñuy wax gulaa gul la ko yóbbu woon gulaa gul nag moom moo tolloog fii daaru raxmaanu sëriñ Fàllu Asu Jéy nekk foofu la yoroon sëriñ Abdou Karim Touré ba ni sëriñ Touba Seexul Xaddiim nag jógee ci géej gi ginnaaw bu sëriñ Touba Seexul Xaddiim jógee ci géej gi nag ba maam Cerno dem ziyaare ji ko ci dëkk boobu di ndar géej ca maam Cerno Ibrahima Faati fekkaatoon na ko nag ci dëkk boobu di sànnoosi sëriñ Touba Seexul Xaddiim nag laaj na maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ana Abdou Karim Touré mu ko xamal ne ginnaaw bi nga demee ci géej gi la ko fi nag waajuram wow jël seedi sëriñ daam Touré seexul xaddiim nag yónni woon na ay ndaw ci sëriñ daam Touré ngir itam nag mu indil ko jëmm jooju nag di sëriñ Abdou Karim Touré ginnaaw bu sëriñ daam Touré indee nag jëmm ji di sëriñ Abdou Karim Touré nag joxaat ko ku baax gi sëriñ Touba seexul xaddiim seexul xaddiim nag laajoon na sëriñ daam Touré lan moo taxoon nag mu dénkaane woon jëmm jii di sëriñ Abdou Karim Touré ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba pare nag moom mu ñëw jël si ko sëriñ daam Touré nag mi ngi doon tontu di ko xamal ne damaa xam ne Abdou Karim Touré mii bu doonee ak mbokk rek maa ci gën a yey nag ci toppatoo ko Seexul Xaddiim nag tontu woon na Serigne Dame Touré di ko wax ne nag lépp loo mas a liggéeyloo Abdou Karim Touré mii bay ba nga tuub ko te jéggalu ko ko Serigne Dame Touré itam nag wéyal na ndigalul ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim te Abdou Karim Touré nag wéy nag di des ak ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim ànd nag ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim ba ni Serigne Touba Seexul Xaddiim delluwaate gànnaar bi Serigne Touba Seexul Xaddiim eggee gànnaar nag ci ñi mu woolu woon gànnaar itam ci sëriñ Abdou Karim Touré mii bokk gànnaar googu itam la nekk ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim ba mu jóge gànnaar ca yéen jolof itam kasaalika na ku Seexul Xaddim ba tax na njaareem googu itam la jote ngërëm ci ku baax na fa ci dunduk sëriñ Abdou ak ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim mu nekk nag ku Seexul Xaddim bàyyi xel mu nekkoon itam ku ràññeeku ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tubaa seexul xaddim nekkoon na itam ku amoon sañ-sañ ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moom ba tax na lu baree baree baree baree bare def na ko ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sañ-sañ boobu ñu leen doon wax ne amoon na ko ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim amoon ko itam ci seexul xaddim moom sëriñ abdou karim Touré firnde bi rek mooy keroog bi sëriñ mansour jaw làqoo ba seexul xaddim nag ñëw nag fatu aalu mennum sëriñ abdou karim Touré rek moom moo fexe ba ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ubbi ginnaaw bu seexul xaddim ubbee nag li doon yëngutu lan la dañ ne ko Abdou Karim Touré de la Seexul Xaddim ne Abdou Karim Touré xamoon naa ne yow a waaye lan la sëriñ Abdou Karim Touré nag di tontu ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim di ko wax xamal ne du dara malaaka yi rek ñoo fi jaaroon nag doon sargali Mansour ku Seexul Xaddim fonkoon laytim ba tax na itim ñaare bu ko Seexul Xaddim masa fekk mu toog wala mu taxaw Seexul Xaddim dana taxaw na xoolaat jëmm jooju di sëriñ Abdou Karim Touré bu xaw a yàgg ndax Seydina Jibril ñëw na ay yoon yoon ci ku baax ki Sëriñ Tubaa Seexul Xaddim melokaanu Abdou Karim Touré moomu nag lay yor ba tax na sax mag ñi daanañ ko wooye Jibril moom Sëriñ Abdou Karim Touré wooye googu ñu ko daa wooye boole ko Seexul Xaddim bu ko masaa fekk fenn mu taxaw wala mu toog mu taxaw ab diir bu yàgg di xoolaat jëmm jooju di Sëriñ Abdou Karim Touré am na bis Cheikh Issa Diène bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki Sëriñ Tubaa Seexul Xaddim toogoo nag Sëriñ Abdou Karim Touré ci jataay ba mu yàgg mu bàyyi ci jataay ba Sëriñ Abdou Karim Touré nag dem ci ku baax ki Sëriñ Tubaa Touba Seexul Xaddim ba mu eggee itam fekkaat na fa sëriñ Abdou Karim Touré mu toog ginnaaw bu Cheikh Issa Diène ziyaare ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ba fi mu na fi nag kii di mu toog mu delluwaat ci Seexul ba muy dellu ci Seexul Xaddim itam na sëriñ Abdou Karim Touré ba tey itam mi ngi toog ci ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim Cheikh Issa Diène di ko wax ne man de damaa ñëw fii fekk fi Abdou Karim te fee ma jógee itam Abdou Karim ma nga fa Seexul Xaddim di wax Cheikh Issa Diène di ko wax ne boo soxlaa Abdou nga seet ko fa soo demee da nga fa fekk Abdou Karim Touré ginnaaw bi nag la seexul xaddim woolu Cheikh Issa Diène di ko wax ne Abdou Karim Touré mi nga la loolu taxoon na mag ñi bàyyi xel bu baax a a baax kii di Cheikh Abdou Karim Touré ba tax na itam mag ñi itam daanañ wooye sëñ Abdou Karim Touré Jibril te jataay boobu itam nag la Sëriñ Tuubaa seexul xaddim doon leeral jàmbaar jooju di Cheikh wax ne ki nga fi fekkoon de du Abdou Karim waaye Seydina Jibril la waaye ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam amoon na ab daxayatul kalbi mu di ko xamal ne ko daxayatul kalb yooyu ku ñàkkoon kii ñaan la woon ku baaxoon la woon ab saxaaba la woon itam ci yonent bi ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam ko amoon itam ataar la woon moom daxayatul kalb moomu ci la seexul xaddiim nag di xamale seex isaa jenn di ko wax ne man mii itam abdou karim turé mii nag mooy sama daxayatul kalb moomu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim séq ak sëriñ abdou karim turé ba tax na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim woolu woon na ci njaareem googu sëriñ abdou karim turé ànd ak moom ba ci benn ci kees yi nekk ci biir biir kër gu mag gi di ko wax ne kaay man la sama yoonu tukki wi yow Abdou Karim Touré ba tax na sax yoonu tukki boobu ginnaaw bu ko seexul xadim nettalee sëriñ Abdou Karim Touré ba noppi seex Abdou Karim Touré bind na ci nag ak xasida ngir nag di wax nag ni ko ko seexul xadim nettalee mu nettalee ko noona ci biir xasida gi sëriñ Abdou Karim Touré bind nag ngir wax ne sëriñ Touba seexul xadim moo ko doon nettali tukki bi sëriñ Abdou Karim Touré nag ma ngay wax ci diggante bi sëriñ Touba seexul xadim sancee Touba ba nim fi jógee dem Mbàkke Baari Jolof diggante biñ ko jaxaseeg tubaab bi ci ay wax diggante biñ ko doon julliloo ci géej gi ak yu takkoo takku daal seexul xaddim wax na ko ko ca jataay ba ca jataay ba nag kii di cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina fekke na ko ndax cheikh abdou karim touré mi ngi koy waxaale ci biir waxtaan wi waaye yuuxu gu fa cheikh ibrahima fall làmp yuuxu nag moo waral seexul xaddim bàyyi woon waxtaan wa ñu teewlu xasida gi cheikh abdou karim touré bind ginnaaw bu ko seexul xaddim woo woon ci ab jataay ngir di ko nettali nag lan moo nekkoon sababu tukki ba te ginnaaw bu ko seexul xaddim nettalee ba noppi nag cheikh abdou karim fabaat waxtaan wa nag def déglu xasida googu bismillahi rahmani rahim sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslim amma ba'du faqad da'ani sayyidi shaykh ahmadul qadim mbakke min baaxil qadim faataya mufassada daarihi wa ta'adusu ma'i fi amri qaybati wa ma jara baynahu wa bayna iblis al-la'in aduwwullahi fi awwalil amri fa bi sikri katatu ma akali shaykh qala allahu tabaraka wa ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fa'dis wa bi salika qultu hadha labiyati shukran lillahi ala ma awlahu lana bismillahi allazi muhlil iliyini badahtu saamati fi ahlal mbakiyini qad saada fa diina yabki li wax sa saadaranin bil uri wal qahti saasi in bi tahnini sawalahu alfaqra sa bahsin bi qurbatihi wa qaala ya sayxu alsabaa tasfini ajabahu binaam ana tabibu lasi asfika wa shartu bada albur'i tuclini allimtu daaka ma yasfika aarifuhu an ahbuda allaha taqdisan bi taasimi man saaka xaala lahu laqad alimta bima asaabani wa bima adwa bi tanini man sal abalisu ahlul asri ajtamahat tabki li axbihi suhran walmaanini wa qaala iblisu sirru lilwara fa inni atuuhu lilbahri asaakum yulaqini ajabahum asbi allahu alasibu una mujri albuhuri بتسخير وتسكين ألقى الأداوة في الأخيال والأكما فالقال والقيل دور كل ما إني قد آجر الشيق من طوبى إلى جلس من بهد أبقاله طوبى بتعشين قد جاءه آكم بالجند سابفهم جاول لندر جاءه جند المقاسين جبريلهم قائد الركب السماء وأبو بكر لخائد جند الأرض بالسين بالياء والجيم دون المين أن جدل الله قد أيس الملعون بالحون المسلمون من القديم قد خرجوا خوفا من المخرجين سيغ معدين سيخي لقد قد قابل الحكام فانتظروا أنفى نفوسهم صهرا بتسئيم قد حاكموه إلى أقصى البهور إلى أسفل الإباد مع إبليس ملعون قد أبطلوا الشيق في فلك وقابلوهم بالحمد قد قال اسم الله يقنيني ساروا لأكفر أهل الكفر أخباهم إبليس قاتله شيقي بالتليين في البر قاتله شيقي وكبكبوا خير ورى وأوى خرقا بالتكوين فرد تكمسوا اللهدا وأذنهم بالأق أيده مولى بتوطيني نفس ودنيا وشيطانا أوى سماء إبليس أن شيء طريقنا فروا بتلدين نهم الشجاه بكي الإسلام رافئه فدين أكرمه قطبا بطانين وقد قابل الشيخ شيطانا وأن جدلوا الله وانتصروا نصر الملاعين على على البطن إبليس لما برسوا قد أرهب الجند بالآيات والدين قد سالموا الشيخ باسترسال ألزمة أيه لأهلك يا ساقي سوادين مالي لأرجع إثما منكم فإني قال القديم فأوسوا كل ملعون وصار يخدم خير خلق سيدنا محمد المصطفى مرد سلاطين فلا عليه بتسليم muslimin musayiduhu bi isbihi ahla mafrudin wa masnuni fa atatu min almaxduni duxiyatahu bi ismi xaaliqi kansul masakini awaa min allahi ma laa yahtawi qalamun jawfal wara qad awaa asrabi taljini am laa sanadiqa taw ida al ilahi wa andaan li sayidina nuur al amakini fala alay lasi bil aqi arsalahu adal wara bahda taslimi bi masuni min almaratibi in jaa al muridi lahu min alsaqawa ma xaw almawasini wa arsaqa allahu shayqi indahu wa nafa iblisa man indahu tardan li sijjini wa saara yaxdimu xayra alxalqi ahmad na nuuru sawaadini muxtaaru bayaadini fala alayhima taslimu mursiluhu bi isbi waltasuxli xayra aanini wasi'a fi nnaasi lilmal'uuni arwalahu xawfan min alsayqi haasa qaw maxzuuni taajul kamaali ala rahsi alqadiimi lama jaa sayq min buudin ban li maknuuni min almaratibi itlaaxu almuridina fi ma xayruhum qad naahu nahy maj'uuni nihma alsujaa'u lisi aasa alwusula wa isaala almuridina xawsan xayra mamnuuni wirdun li xaadiri aw tijaani istawaya lawlaahu man tafaa qul saabi tabyini alhamdulillahi munsi alxalqi min adamin mustaaraqa cheyqi saytaana bi matduuni shirna suyuuxan waxat man min ma maqaasidana fadlan min allahi ma xat faaqa masnuuni nihman mbakiyu la si law lahu martafaha sol ja i wa siiti dahban doona taxniini nadbun karimun jawaadun suudan wariun qutbun qiyaasun adiimul misli fi ddiini qarmun alimun xalimun soo tuqan wa saqaacibun li taabi haada xayra maqbuuni bàyyehtusa cheyq fi daarimi shaa'iduhu rabbul wara xaaliqi lmicwaanu madyuuni faltahmadullaha ya ahla alqadiimi ala كون القديم قديم المستغاثين أستم على غيركم محس منفعة ومن به لاس قبرا غير مفتون يا رب صل على المحبوب أحمدنا باسم من قد حيوا على عليين واستر معيبنا واتنب موائبنا بشيخ أحمد مختار بكيين xasida googu nag la bindoon ginnaaw bu ko Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim wooloo ci njaareem doon ko wax ne ko Abdou Karim Touré kaay ma nettali sama sababub tukki bi nettali googu Seexul Xaddim nettali nag sababub tukki bi Sëriñ Abdou Karim Touré tax na nag kii di Sëriñ Abdou Karim Touré nag aal dugg ko ba tax na nag mu bind nag yeneeni way ngir leel ko nag ñibbi si tukkib sëriñ tubaa seexul xaddiim boobu boo demee ci way yi nag ma ngay wax ne sëriñ bii muy waaja way muy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moo nekk ci biir nooni jaar ak ñoom fi mu jaar ñoom ba noppi ba làq ci ay may yoo xam ne na kawe na képp nag kuy sàkku ay may mu ne sëriñ la boo xam ne ni nag moo yëkkati lislaam nag ba feeñal ko sëriñ la boo xam ne itam moo delloo si nag ak maandu moo feeñal itam leeri lislaam mu ne sëriñ la boo xam ne itam bi mu duggee ci biir tubaa bi ba jaxasoog ñoom ba wal fara ba tey mi ngi wax ne sëriñ tubaa seexul xaddim nag sëriñ la boo xam ne nii lakk na nag bépp xolu boroomu kiñaan ak boroomu weddi mu ne nag dara munta am nag lu dul nag li suñ boroom indi ñu teewlu way yi sëriñ Abdou Karim Touré def ginnaaw bu seexul xaddim ñibbisee ci tukki bi te seexul xaddim nag jëlee fa ndam muy dellu nag di tagg seexul xaddim ci ndam loolu mu am fayxi ama xaab fi lahdaai jaadahum attahtawa mahtawa ankam wa anhaati fayxun lama wa nuuran الحيا بعد ما قد آب من جهد جوف الفرا قد سقانا بالإقاءة فيق سوى قلب في كفر وفي أسد ولا يكون إلى ما ربنا أتي فيق أوامره للمراقب ما كان القصائد ما إمرأتي فيق متى سار جبريل يبصره يرى بما عير المرسول هيئتي فيق إذا خاب الأسياق سجدوا وده تحته أخناق أخناتي فيق معياه توفيق لخابله لأن مجلسه روض المعونات فيق لما خاتل الشيطان كبكبوه خير ورا متبا ها نافر أوناتي فيق إساء آجر المولود باياه يهوي بي واخترج آبي سعاداتي فيق لقد جاوز الأبهار فاقد من خير ورا محتوى قرقا لعاداتي فيق قيود بهورا عند سائله اسم من القوم بالأقتاب ساداتي من جاء يساوي بسيقي سيقه فكفى بسيقه عند سيقي كنساجاتي السيق طول ليل في المنام وسيقي في سهود لربي بالمناجات وقل لشيقك فليلس بالسيق يسا قبل الأسى ما سئير دارة الجات بخ بخ ما دقولي للتبول له قد جاور الله sayqi fa saharjaati maa fi lbariyati man qad jaa yumaasiluhu ilaa ka suubalasi yahwi ka abaati xalloo sabili li haasa laa abban lakumu ba almadaa'i li haasa bilmusibaati sayxun bihi ba arabu arsi fi madahi maa doonahum ahla qurbin su ajibaati sayxun yuwaasilu saa qat in wa yuxni liman yaxrimu an saalimi yahfu li taaati law llahu maa kaana lirahmaani aabiduhu yaxbuduhu kulli yawmin aw fi shaa'ati jasaa'u man in jasaa abdan yuxassimuhu yahwi bihi mun yatadaarani xayraati amina amina bil atbaahi jumlatiin waj wasjud lana ya ilahi bilmasarati wasalliyana bi taslimin ala sanadi muhammadin wa bi man ja bilmasiyati salla wa sallama baaxin bilkiraami mahan alalasi kaana sirran fi lbariyati mooy xasida gim pindoon ngir jagleel ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko ci kañ ginnaaw bu seexul xaddim jógee ci tukki bi te indaale ndam sëriñ abdou karim turé nag wéy nag di bind ay xasida bind na xasida goo xam ne nii moo xasida gi cheikh ibrahima diop almashari yu bind di ci tagg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñoo yam nag nu xasida gi daanele muy nag seexi Ahmadou Bamba ba booy déglu xasidag seex Abdou Karim Touré gi da ngay foog na sax xasidag seex Ibrahima Diop almasari yooguy la soo demee ci xasida googu nag mu tàgg ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim te di ko daanelee Ahmadou Bamba ginnaaw bu mu nuyoo ci xasida gi ni lislaam baaxoo nuyoo gërëm suñu borom sant bu yónnentam ma ngay wax nag ci biir xasida ga di wax ne daal mi ngi sant te itam du dañ nag di sant ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim mi ngi sàkku itam ci suñu borom mu nangul seeni xol ngir ñu ngi sàkku itam ci suñu borom Seexul jigéen mu ne yow mi nga xam ne yaa ngi sàkku kuy kemal sëriñ tuuba da sonn rek waaye li ngay sàkku moom munoo koo am ñëwal nangu rek te topp ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim mu ne yow mi nga xam ne yaa ngi wuti nag koy nuróole ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim gaawul tuub te ñëw nag topp ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ndax li ngay sàkku kat munta am mi ngi wax ne yow miy wut xéewal yow miy wut barke wala yow miy wutum koom dawal rek ñëw topp ci ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim mu ne nag sëriñ sépp nag buñ doon biddiw seexul xaddiim weer la mu ne bu fekkoon ne sëriñ si dañoo nekk ay biddiw itim seexul xaddiim moom jant la mu ne fekkoon na sëriñ si itam ay dex lañ sëriñ tubaa seexul xaddiim moom géej la kon ngalawaay rek ñëwal topp ko ndax leneen la ngay sàkku jikat munoo am ku mel ne moom ñu teewal xasida gi sëriñ Abdou Karim Touré bindoon ba tey nag di ci kañ ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim te xasida gi soo ko déggee da ngay yaakaar ne xasida gi Cheikh Ibrahima Diop almashari yu bind moom itam di ci tàgg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom nga koy teg waaye xasida gii nag Cheikh Abdou Karim Touré moo ko bind ngir itam di ci kañ ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu teewlu ko yaa man yuridu nasi كثيرا كشيخ أحمد بنبا رمت معالي فلاسم بشيخ أحمد بنبا فلا ترون مسبئا كمثل أحمد بنبا فتب إليه وبادر لشيخ أحمد بنبا ولا تسال قديما لشيخ أحمد بنبا إذا أردت نجاة بادر لأحمد بنبا إذا أردت نعيما فاخشط لأحمد بنبا إن السيوخ نجوم والبدر أحمد بنبا إن السيوخ بدور وشمس أحمد بنبا خير قديم كمهر والبهر أحمد بنبا خير قديم كطل والودل أحمد بنبا إن suyuuxu uyuunin wal birru ahmadu bamba xayra qadiimi muriidu muraadu ahmadu bamba xayra qadiimi kamaasin wa tayru ahmadu bamba inna suyuuxa tulaabun wal qutbu ahmadu bamba samsu sumuusi wa badrul buduuri ahmadu bamba xayra quyuuri wa nasru nusuuri ahmadu bamba nuuru muriidi wa naarul mariidi ahmadu bamba aynu rijaali wa isnu nisaayi ahmadu bamba wala tasal sanada min maa laa yaqisuka bamba yaa raa'iman li sabiyi ka misli ahmadu bamba fatub bi xaysika islaa taraaka ahmadu bamba xayru xadimu binaahu walkahbu ahmadu bamba inna rijaala nisaawun in haana ahmadu bamba inna siyooqa iyaalun li sayqi ahmadu bamba ginnaaw waay yooyu mu bindoon te doon ko daaneele ahmadu bamba doon ci tàgg sëriñam ba ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim wéy na nag di bind moom sëriñ abdou karim Touré wéy na nag di topp ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ba tax na itam fépp foo xam ne nii seexul xadim nekk na fa lu dul gabon rek ànd na fa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim kon ku seexul xadim bàyyi woon xel la ku mag ñi itam bàyyi woon xel la moom sëriñ abdou karim Touré ba tax tax na itam amoon na relation ak mag ñu takkoo takkoo takkoo takku moom jëmm jooju di Cheikh Abdou Karim Touré teewul itam nag sanc na ay dëkk ngir doon fa yar di jàng ak di jàngale ndax ndigal loolu kat la xaadim rasuul rek joxoon mag ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko toppoon sëñ Abdou Karim Touré itam nag desul woon ca mag ña kon goroon na ay dëkk ak i daara ñu ràññee ci dëkk bii mu goroon di Busra Busra nag ñu ngi ko gën a xamee ci Kambidu Kambidu googu nag ñuy wooye Busra mi ngi ci wetu mbul kayaluk Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke sëñ Abdou Karim Touré itam sanc na dëkk bu ñuy wax kelew teew sanc na itam dëkk bu ñuy wax nee ful sancoon na itam dëkk bu ñuy wax coon amoon na kër itam ci Touba Daaru Minam ci kër googu sax la génnee àdduna ci atum 1976 kër gi moo dend ak kër sëriñ Abdou Latif Mbacke moom Jaara Mbacke kër googu itam ba tey moo dend ak kër sëriñ Moustapha Mbacke Basiiru ci bërëb yooyu nag la nekkoon di yar di jàng ak di jàngale ngir wéyal kat ndono li leen xaadim rasul bàyyeel loola itam taxoon na nag mu bind ak xasida ngir nag di ca sant suñu boroom di ko ca suñu boroom ndax ngëneel yi ko suñ boroom defalkat bari na lool wanele gum ko wanele xaadim rasul dimbali gum ko dimbali mu nekkub jullita boole gum ko boole ci xeetu ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam cër bum ko jox ci kaw doomu aadama yi lool lépp daal la sëñ Abdou Karim Touré bindoon jagleel ko ak xasida ngir nag di ci kañ nag wala di ci kennal kenn ki muy suñu boroom ñu teewlu xasida gi Cheikh Abdou Karim Touré def ngir nag di ci santaat bu baax a baax a baax a baax suñu boroom allahu والجاية لو سماوات والأرضون منفردا بر قبال الورى أو جا وأو جاية له البرايا بتكوين بلا جدل أي قيوم وقد أسال رحجاية الله أكبر ما أرجو وأطلبه ومنه أطلب في دارين فوجاية هو اللطيف به أرجو لطائفه وأن يكون له ما استهر جاية ربي لأوضحت أوصالي ليرحمنا في السر والجهر من دنيا وأخرايا بارك لي اللهم الأهمال جملتها وبركا في إيال تلك أخرايا بالبرايا استرا ما قد جنوك هنا واغفر ذنوبهم مخلدا ميرايا يا ذا الجلال وذا الإكرام يا صمدي واستر بأسماء والقرآن أو راية محمد خير من يمشي على قدم عليه تسليم من قد سبب الواية أوا سيادة بالإطلاق خاطبا لولاه لم يخلق القلاق سرواية مهو الكرام هم يقول كلهم نفسي وقد قال يومي يوم جلواية مد وإفس وتوسيء ومرتبة له من الله ساء قال لهواية wajjahtu qabli allahu ilahu alladi xayra alwara qad asaala yowma zakwaay bahdi li ubbiya xayru alxalqi ahmadana ma alladi qaala fi salxaari macwaay nuuru lwara ahmadu lmuxtaari saafiuna sala alay lasi yahwaahu nahwaay yaa xayra man lam yasal barran wa muxtadiran awsil salaamayka lilmuxtaari mawlaay bil aali wa sahbi walqaafiina sunnatuhu bihim wa julli bihim lam yafni jadwaay ci loolu nag la sax di tàgg suñ boroom ak di way nag ki mu yaakaar di xaadim rasul ba ni fi xaadim rasul bàyyi koo nag ci atum min 1927 mu jël léppam nag jébbal cheikh mamadul basir ibnu sëriñ tubaa seexul xadim ndax kat seexul xadim moo ko boole woon nag cheikh mamadul basir loolu moo waral nag cheikh abdou karim Touré ginnaaw bu fi seexul xadim bàyyi koo nag mu jël léppam nag féeteeg cheikh mamadul basir mu féeteeg cheikh mbàkke nee na dafa am bis ci njaareem ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim doon waxtaan ak moom ne ko abdou mu ne ko mbàkke mu ne ko yàgg-yàgg nag mbëtt ca mbëtt ya waaye baritim ca bari ya mu ne loo itam sàmm na ko bi fi seexul xaddim bàyyi ko kenn ku ne jëm fenn moom itam daal mu xam ne daal mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim cheikh mamadul bachir la ci gën a bokkal nag day daal di sukkandiku nag ca waxi seexul xaddim jooju mu ko waxoon ne mbëtt ca mbëtt waaye bari itam nag ca bari ya loolu itam moom moo tax itam mu fab léppam nag jébbal cheikh mamadul bachir mbàkke way na nag kooku mu yaakaaroon di cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddim ndax dafa amoon bis wala dafa amoon ay weer yoo xam ne nii sëriñ abdou karim touré na lu méttee métti metti ci dundam ndax taalibe yi ko yaakaar ñu ci baree baree bari ñu ngi génn nag lii di adduna ndax feebar bu metti boobu amoon te daloon ay taalibeem boole koog nag yenn ci taalibe yi itam ñu ngi dem te mënatu leen a gis loola itam taxoon na nag mu bindoon ay way si Cheikh dul Basiir Mbàkke ngir di ko ñaan nag coono yooyu ak jafe-jafe yooyu mu nekke mu mën a saafarawu xasida ak ziyaar daal la ak sàkku ñaan ci ki mu jokk jamono ji di Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ñu teewlu xasida gi musayfi wa ma lixaaruhu jaala fi lqalbi asa j ahla surbatan usila qad ihtara min ماقمات الورى كعبا أسنا سديدا ولو لامته قتل أحساني اليوم خوفي من فراقي ما جمعته من إيالي وفني عولا ما جاءكم قط محتاج له وتر إلى أن له رب الورى نعلا أريتك اليوم أبياتي لتعلم ما في القلب من نية يا خير من بثلا ولم أرد نصرة الأبيات ناسيا قل ارتفي بعد مهل الفقر منقذلا عليك إن جاس ما لي شيق قد وعدا كم من موائده يا وارثا قبلا فاطلب لي الله مما في قفائنه ما ينقل الفقر والجهر والوخفاء والوجل بايعتك اليوم بيئا لا إقال له خدم مريدك هذا واقبل العمل اسمني الأهد توكيدا يجدد ما بيني وبين خديم المستوى كمل فلا عليه مع تسليم مرشده مع أمره بدره قد جاء وانبسل يا شيخ يا شيخ يا من نال رتبته كسبا تلادا أني مير والعمل ولست شيخا لدودا لاد سالمه يا كاسم القيس يا من سبقه أقل لكن لدى الله ما لا يهتي قلم للكاسم القيس والموالي mawlaa lanaa bajala innii la abdun li rabbil arsi maalikinaa mustamsikan bi bashir ibnu xadim ala warfax janaabi war li man yasiru minni wal tajmain samla wal tuf bi wasid li ula qad jaahniya waxsu irxaaban ilayka firaari laa siwaaka aqisni laa yaa muqisan wila an axtu baabaka ragbi lyawma xaari'ahu faltaftaxil baaba lii faltadfahil xajala judli bima faaxa maa xad faaxahu harimun ila zuhayrin walam akun alayka kalla axtartuka alyawma min sirbil xiyaari mahan walaysa sanniya ata gaybun unaaka fala qad usta ma usta min najdin wa min sharafin wa min toqan walhudan waljalwu ma ufila alhamdulillahi lama jaaza lii karaman bi axsi saylika ma awsiya ma tubila filqaati an wahti man yahrimka ya siqati an saalimi wahfuha sasimata alfudala wahum bihim jaati larsaaxu naasilatan min rabbina lilwara walkullu kam kamula maa fee dahawta illahi al arsi min asamin bihim yujibka illahu al arsi man dawala bisaa dahawtuka yaa xawsal wara hasanan yaa ibnu xadimi firafil jaw ولو فيما سئل فابأس إلهي بإرسال رسولك ناخصا ضمائري إسخاليا منتعلا إن يحسدوك فإني خير لائنهم من كان مثلك يبقض فاك من فضلا لا يمنع البغض سمسا من طلاءتها مهل السما لمعاد الأرض قد فعل ورش من بهد ما أبوه ارتفها ولا يكون إلى ما الله قد فعل أهلاك مولاك يا شيخا ألوس به فخص بيدي من أخدامهم عجلا كنا في صف وقد بايعتكم كسسا لدى سنوس وصى بالعبد mawusila wasa liman yabqi ula birdan rabbil wara mursilil muxtaari jallaala salaa wa sallama rabbil xarsi malikana alayhima isbihi wal xayri li jaala ginnaaw xasida googu mu wayoon cheikh mamadul basir doon ko ci kañ boole kook am nag lu mu doon sàkku ci moom wayaatoon na nag geneen xasida cheikh mamadul basir nag di ko ci sant nag te tàmbale xasida ga nag ma ngay sant suñ boroom mii boroom mi may mii boroom mi leer mii boroom sutura mu ne yàlla moomu nga xam ne mooy boroom mi leer boroom mi sutura mi nag mi ngi wéy nag di sant nag kii mu yaakaar di cheikh mamadul basir mbàkke mi ngi wax ne nag fab na ab xolam jébbal cheikh mamadul basir mbàkke te xol boobu mu jébbal cheikh mamadul basir mbàkke nag amul lenn nag lu mu ciy sikki sàkka wala amul lenn nag lu mu ciy desal lépp rek da koo jël jébbal ko cheikh mamadul basir ngir sopp ko ñu teewlu xasida cant gi mu defoon ci cheikh mamadul basir mbàkke am diili rabbin am diili man fiihi anwaarun wa afaaru wa saqahu qassahu mannaanu sattaaru qalbi bihaa un wa wa القلب بطار فاك البصير لسي يا ليت يلحظني من جوده سائق تحويل ينفار ما كان للناس بعد المصطفى صدم هم سوى البصير لسي قد آف أنوار شيخ كريم جواد صوتقا وره طب لبيب وصوبال وصبار قرم شق تقي لطيف سوء سند أول اليتامى على الأهداه جبار له مكارم ما لا يهتوي قلم بعد المروة ما لم تحي أكار شيخ عليم عليم واسع سند برم أطوف لأسماء الله الذكار إن كان للشيخ من قد جاء وارثه ذاك البصير الذي جدواه مدرار إن كان للشيخ من قد جاء وارثه ذاك البصير الذي جدواه مدرار نهم البكي مجير مستجير به وليس أن وهده للناس للناس قبار فالصر بسيرا بإيقاد لخالقنا إن المعيب لمن أحب الزوار كونوا معا باجتهادي سائرين له ولتعلموا أنه اسم وأسوار للمهتدين بسير والقضاة معا نسير أم وهو لله داء قعار من جاء سيقية للممنوع مخعما جاءت له من رئيس القوم أموار أم سالم وهو سوء أف ومرحمة لكن ما عنده ملك وأسرار قد قط يا شيخ يضيق بحرا عند سائله أخيار جيلك يا صل الخصر مختار من سك خولية bi anna allaha shatta ginnaaw waay yooyu mu way ci cheikh mamadul basir mbàkke bi sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma di aji sëñ abdou karim turé tim defoon na ci ay way ngir jagleel ko aju googu sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma di aji ca biir xasida ga itam ma ngi cay tàgg nag kii di sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ci nurugum nuru maamam xaadim rasul ak nurugum nuru waajuram wa cheikh mamadul moustapha mbàkke ñu teewlu xasida gi cheikh Karim Touré defoon ci Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bi muy dem màkkatal mukarrama ibnun saqiyun jawaadun saa'ibul xaali tayyan yujawisu kafra alqaaliqi alwaali lahu lada allahi taxsiisun axata bihi musiila qad xajja bayt allahi qawaali xawa almaratiba min nuuli lwara nicaman yaxwi lwusula wa yanfi kulla ahwaali in alkarimu isaaqa daxtawun qadaha nihma alalimu lasi qad xalla askaali jihtu lmufidu wa arju hawsa matlabati aataytuhu sastika in wahwa askaali الأفعال عناية الله إن جاءتك نافلة أطع إلهك ba tey Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom Cheikh Abdou Karim Touré wayaatoon na na ko yeneen i way nag ci biir way ya nag ma ngi cay wax ne ki nga xam ne ni day tere lu ñaaw te kenn mus koo gis mu def lu ñaaw kooku mooy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu ne sëtub Xaadim Rasul la ak doomu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ki nga xam ne nii nag soxla su waay masaa am boo ñëwee mu saafaral la ko te deewul coow ki nga xam ne ne nii daal royukaay la ndax soo ko gisee rek gis nga maamam ja xaadim rasul mu ne ñu miinoon Cheikh Modou Moustapha nag jurótul ñuy jooy wala ñuy jaaxle ndax sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi ngi fi jikko yu yaatu daal ak melokaanu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daal la wax ci xasida gi mu ko jagleel ñu teewlu xasida gi amdan li rabbi karimin amdan liman kawana lakwaani bilkaafi wa nuuni waxtaara ibni almustafa saafi sifaahu xayra majhulin isaajtamahu kaanu xutaaban wa aasa الوافي اختار لنا الوافي لخيرنا دون لقيا بالمنى وإجاز الحمد لله مما بالقضاء جافي وهو الكريم جواد ابن الكريم جواد ابن الكريم إله كل معافي يا الله يا الله يا من جل عن عدد حتى الموائب كسرا بإرقافي من جاءه طالبا نيل المراد به يجد ألوفا بلا عد كأجسافي علم وحلم وأداب وراثته قبل الولادة هاسي خير أوصافي ولم يصل قط ساجاء وفاور يقدو ليقضي أو جاء بأوصافي مدت أنامله خلقا ذراعم anhu kiisun li baadin li baadin minhu asdaafi yuhti liman yartaji nayla almaraama bihi fawxal muna bahda mahwi kulla asraafi qad saabaqa alcheikhu asyaaqan li rabbihimu wa saara qaaidu rakbi alqawmi asraafi maa in lahu malakun yaktub lahu amalan suuhan wala qalamun yuraf bi itraafi maa kaana lilxalqi bacda almustafa sullalun taxsha alayhim siwaatni almustafa kaafi wasallim bilkiraami maan ala muhammadin almacruufi bisaafi ku amoonug jaxasoo la ak Cheikh Massamba Mbacke mi rakk ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba tax na bi Cheikh Massamba Mbacke Mbàkke sancee dëkk boobu di daarul karim ginnaaw daaru gi karim gi ci topp karimuk sëriñ Abdou Karim Touré gi la ndax Cheikh Massamba Mbàkke moo ne woon sëriñ Abdou Karim Touré ginnaaw sama daaru gi yow laa koy tudde loola itam taxoon na nag ginnaaw bu Cheikh Massamba Mbàkke sancee dëkk ko daarul karim sëriñ Abdou Karim Touré nag na fa ak sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa ngir dem na ngénte ji dëkk boobu di daarul karim ba ñu eggee kii di sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa nag ndawtaloon na sëriñ Abdou Karim ci dëkk boobu di daaru karim def ñetti way ngir ndawtal ko ginnaaw loola itam nag wutaloon na ko mbootu foofu xasida nag way ko ko mi ngi wax ci biir xasida gi nag na weeru tamxarit nag la Cheikh Massamba Mbacke sanc dëkk boobu di Daarul Karim ma ngay ñaanal Cheikh Massamba Mbacke di ñaanal dëkk boobu ak ngëneeli dëkk ba ak kan mooy Cheikh Massamba Mbacke ñu teewlu xasida gi Cheikh Abdou Karim Touré defoon ci turandoom woow di Daarul Karim Daarul Karimi lakrami daarul muna wal karami xusisa fil muarami binaaha sool karami alhamdulillahi alkarim baana lana daarul بما يديم سكور أو نعم أسأل ربي المعين بأن يشفي اللعين وأن يعيب المستعين به بجلب نهم لمن أتاه داره من فقره أجاره وقلبه أناره وصار كالمعلم كمله المكمل أوسله المسمل ومن له يا أمل طلبت صابي كلمي رقاه لقدره ومتقلا في شبره لطفا بأهل أصره نصير كل مجرم يا خير من يرى القيوب علمه جملة العيوب والتمه جملة القيوب أن أهله أرم رمي علمه جملة القيوب والتمه جملة العيوب أن أهله أرم ramrami maaral wara fi daarihi sahru rabbihi rabbihi kadahbihi wa xasbihi xuyuru waatimi uritqanaaka yaa karim fi daarihi daarul karim bi an amin laysa tarim ujuru wahatimi uritqanaaka yaa karim fi daarihi daarul karim bi an amin laysa tarim ujuru wahatimi wafatu ubbuka sinin fattak fi kaydal xaaimin animu sasi alin bi mbakkiin mu faai waxisu min kulli lahim waxlisu min kulli shayin is qalbu qalbu salim waxay soo takk sumi waxfir sunuba ahlihi waxbal jamia ahlihi waqut simaami xaylihi ila liwaasil karami rabbi yaqultu rabbana ربنا يا خالق المسن بنا فقل له يا ابنا عبد الكريم الكرم مالك يمينه بلا كد نافعا ولا فين يصوبه بلا Karim Touré ba tey nag bindaatoon na yeneen i way jagleel ko sëriñam boobu du Cheikh Mamadou Bassir Mbacke ibnu Xaadimu Rasul ma ngay wax ci biir waye nag ginnaaw bu mu santee boroom ñaan ko kañ ko ci darajaam ma wax ne ginnaaw bu Seexul Xaadim wéyee moom amaatut beneen sëriñ nag bu dul Cheikh Mamadou Bassir Mbacke ibnu Xaadimu rasul mi ngi sàkku nag ci borom aras moom mi nga xam ne ni moom moo koy dolli ak mbëggeel di ko dolli itam ay leer ngir mu topp sëriñam boobu du cheikh mamadul basir mbàkke ñu teewlu way yi sëriñ abdou karim turé defaatoon nag ci sëriñam boobu du cheikh mamadul basir mbàkke ataakum muridun sayxi lillahi shaairan yaruumu liqaa alqaasi lillahi saaila wama li siwa sayxu alqadimi wasilati una wahna qad sirtu nahwaka maaila am bi amittu illahi al arsi amdan yasiduni fuyudan tunirul xalb ma rumtu naila tamassaktu bi cheikh albasir alyawma man bihi artaji daarayni kawniya kaamila ba tey sëriñ Abdou Karim Touré bindaatoon na geneen xasida doon ci laaye biir nag murid yi nga xam ne nii dañoo bëgg a jariñu nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ca biir xasida gën a ginnaaw bu nuyoo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim kañ ko wax lenn ci ay jikkoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ma ngay wax ne nag bépp murid boo xam ne ni bëgg ngaa jariñu ci ku baax ki il faut na nga am passé farlu mu ne képp koo xam ne ni doo topp ndigal ko tënkee ngir itam di ñaax murit bi ngir mu gën a pasteefu ci yoon wi ñu teewlu xasida gi amma baxdu fa ayuha almuriduuna fa taalibuuna rida almuridina alwaasiliina almuwassiliina alaykum kalaamu cheikh alqadim alayhi fi daarayni ridwanullahi alqadim wa min kalaamihi radiya allahu abadan laa yantafiu man laa yaxtaqi wala yanaalu almatlubu man yatahaddab wa man lam yamtasil wala yanju mima yaqaafu man lam yajtanib fa bisalika qultu haasi labyaat lijtaida man araadu nayla almasiyat way yooyu nag la cheikh abdou karim Touré wayoon ngir murit bi mën cee ngir jariñu nag ci yoonu xaadim rasul bi ba tey nag sëñ abdou karim Touré nag wéy na nag di way ay way ndax marsiyaaloon na kii di cheikh sàmba Mbàkke ginnaaw bu mu génnee àdduna ci way ak jàng ak jàngle la sax nag ba ni mu génnee àdduna ci atum 1976 mu nekkoon itam ku mag ñi bàyyi xel ku mag ñi ràññee woon ba tax na daanañ ko wooye jibril ci njaareem loola itam taxoon na mag ñépp itam bàyyi woon ko xel bu baax a baax ngir jëmmi jibril jooju ak topp googu mu toppoon ci seexul ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wala réew cheikh abdou karim Touré nga woon bokk na itam ci mag ñi toppoon seexul xaddim ñi fi mujj ndax ci 1976 la génn àdduna ci téeméeri atam ak juróom benn wala ci téeméeri atam ak juróom ci la ñu dëdd moom cheikh abdou karim Touré doomu soxna mariama ndeer Touré ba ak kii di sëriñ ahmadou moxtaar Touré jàmbaari mu dul basir ba mi ngi génn àdduna ci quartier boobu mu nekkoon di tuubaa daarul minnam ci kërug boppam googu itam mu nekkoon bisub altine ñaar fukki fan ak juróom ñeent ciw ndeyu koor ci atum 1396 ci gàddaay gi altine ñaar fukki fan ak juróom ñeent ciw ndeyu koor ci atum 1396 ci gàddaay gi mu dëppoog lundi 26 juillet 1976 lundi 26 juillet 1976 ginnaaw bu mu génnee àdduna nag lañ ko yëgal ki fi toogaloon sëriñ Touba Xaadim Rasuul di sëriñ Touba Cheikh Abdul Ahad Mbacke mu sàkku nag ci sëriñ Abibu Mbacke imam mu waajal jëmu jooju di sëriñ Abdou Karim Touré boobee ginnaaw bu ko sëriñ abibu mbàkke imam waajalee ba noppi nag sëriñ tuubaa cheikh abdoulahad mbàkke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi ci teewaayu nag ax lu murit gi fi nekkoon nag jamono jooju ci atum 1976 sëriñ abdou karim Touré nag ay xalifaam nii la tëddee ku ñuy wax sëriñ abdou wahab Touré moo ko wuutu ci atum 1976 ba 2004 nekk itam nag xalifaam bu njëkk ñaareelu xalifa sëriñ abdou karim Touré mooy ku ñuy wax sëriñ cheikh ahmadou bamba Touré moo fi nekk 2004 ba 2015 ñetteel ñaareelu xalifa sëriñ Abdou Karim Touré nag mooy kam faye cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu sëriñ Touba cheikhul xaddiim di sëriñ Baara Touré moo fi nekk 2015 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñu boroom guddal aw fanam te yàggal ko ci toogaayu sëriñ Abdou Karim Touré bi ak mbooleem ay rakkam ak mbooleem ñum séqal cheikh Abdou Karim Touré suñ boroom am na ko mën na ko yàlla na ko def ci kër googu sëriñ Abdou Karim Touré nag am na bis buñ koy fàttaliku wala am na bis buñ ko daa fàttaliku muy bis boobu mu génnoon àdduna di ñaar fukki fan ak juróom ñeent nag ci ndayu koor boobu nag lañ ko daa fàttaliku ci lu ñu tuddee ak màggal waaye ginnaaw ñu demee nag seeti xalifa général des mourides bi fi nekkoon di sëriñ tubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacke ci la leen doon xamal ne daal bu sañoon bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent boobu ñu bàyyi màggal googu ndax bis yi mag ñi làqookat bu sañoon kenn du ko màggal ci la leen doon sàkkoo nag ñu bàyyi bis boobu ci la njaboot gi nag daal di wàññi nag benn fan nag ca bis ba muy ñaar fukki fan ak juróom ciw ndayu koor kon lii moo waral màggaluk sëriñ Abdou Karim Touré boobaak léegi ngi koy màggal ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ciw ndeyu koor di benn fan laataa muy génn àdduna kon lii mooy sababu màggalug seex Abdou Karim Touré ñii ñaan ci doomu soxna Mariama Ndeer ture ba ka doon liggéeyal seexul xaddiim ba jot ngërëmam ka seexul xaddiim boole woon ak cheikh Mamadul Basir ibnu Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ka nga xam ne nii bu Jibril masaa ñëw ci ku baax ki Sëriñ tubaa seexul xaddiim lu ci ëpp melokaanam lay indi yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram